jërëjëf mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyuwaat di ziar dellu soit ak yéen ci beneen jotaay xam-xam tey nag sama rakk si ah <laughs> Aziz dèjà kenn ci man di nit ku baax wala dëgg yàlla di ñaankatu yàlla vraiment di ko xamante ne que nag mu ngi def ay preuve tey dinañu waxtaanee ak moom actualité réew mi Bassirou Diomaye Faye le 2 la waral a prêter serment waaye nit ñi keroog ba ñu gisee digganteem ak Ousmane Sonko ak Macky Sall biir pale ñenn seen xel dafa commencé tey danañ ko waxtaanee waaye tey mbokk mi danañ waxtaanee wàllu noob danañ waxtaanee produit bi nga xamante ne que Syngenta da nga ko yor ah muy lakk dëkk bi nga xam ne yow muy góor boo ko dee diw si day yokk dana gudd dana rëy tey danañ waxtaanee wàllu seet danañ waxtaanee wàllu ubbeeku danañ waxtaanee luy dindi cat ak luy dindi yàqu-yàqu yaram Cheikh Aziz Bouré ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkeel bàyyi la ngi nuyu saan sur Bprod Media ak Bour Gueweul waaw ñu ngi delloo nuyoo bi suñ buur di ñaanal jàmm di ñaan sunu kàddu fekk ñëpp ci jàmm dina wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu di jaar mbokki jullit yi ak képp koo xamante ni yaa ngi ñuy diglu wala wala dunu seetaan ci site bi di bi di ñaanal ñëpp jàmm ci barke borom Touba macha allah. Euh, Bassirou Diomaye le lay prêter serment. Mm-hmm. dafa commencé tey ah. mm-hmm. ci diggante Ousmane Sonko Bassirou Diomaye ak Macky Sall. dañ jàpp ne que Macky moo jox Bassirou Diomaye nguur gi. non loolu doonu loo xamante ni lu am la ci li ma jàpp ndax boo boo dee xool xeex bi fi mu commencé ak ni euh, Ousmane Sonko doon rayante ak Diomaye ak Macky Sall ni doon rayante pour jot pour pour pour xàññee nguur gi kii ñëw jël nguur gi lenn rek moo ko war muy mu rafetal ba askan wépp xam ni. rafetal ko war mais du comme am na ay problème wala dara <coughs> munta ñàkk daal parfois parce que waaw a ñàkk day mën a doon ci benn côté wala comme daal waaye munta ñàkk comme négociation boo xam ni munul ñàkk lay doon bu dee négociation la waaw. Hmm. waaw munul ñàkk munul ñàkk moom faaw mu tey moom. moom kay dalagul mais nag yàlla yàlla moom bëri na sutura. te bu fekkente ni Ousmane Sonko euh, melokaanam ak ni nga xam ne moom la mel fee ca dëkkam démb rek maa ngi dugg ci benn oto borom oto bi ni bu fekkente ni maire bi um, Ousmane Sonko nekk fee ca dëkkam ca Ziguinchor bépp kayit boo ñëw ci journée bi boo ko déposé ñu ñu génne la ko ci journée bi te loolu ab liggéeyam la fee ca kii tey it ñu ngi leen di bàyyiloo xel ba dañoo war Sénégal bépp papier bu fi nit war a lijjanti fii ci Sénégal mu yomb parce mooy dëkku te li nu soxla loo xam ni dafa yàqu ci ginnaaw ay ay 30 ci ginnaaw mënul ñëw nag baax ci benn mois mënul ñëw baax ci ënna an. bañ a bañ waaye eh, dëkk bu dëkk bu nar a neex lan lan nar a am muy fii ci senegal incha allahu rabbi. Hmm. mu hmm. hmm. man bi ma fi toogee boobu ba tey. ñi lay woo ñëpp la majeure partie seet la lay doy. waa xam nga euh, àdduna nag doo yëkkati sa loxo. fëgg sa dënn maa dàq lépp ñëpp képp ku ko def ab dof nga parce que yàlla daf lay may may sa moroom waaye bu fekkente ni seet mën naa ni yàlla may na ma ci boo ma joxee sa tur ak sa turu yaay foto sa loxo ndajoor yónnee ma bu ma la seetalee bu fekkente ni daan laa liggéey dama lay wax ba wax la ki lay liggéey wax la nu mu tudd bu fekkente ne dafa am liggéey bu nu suul sa kër damay ñëw ba fin ko suul man la fii lan ko suul ma sulli ko seet lim munut bariwul lépp la seet man lépp parce que bu fekkente ni tur nit ki ak turu yaayam xës nga ko xam amul lu la war a jaaxalati ci nit ki ndax euh, loolu ci ngay mën a sukkandiku ba xam nit ki lan mooy couleur am ndax nit ku nekk dafa am couleur bi gën ci moom boo xam ni buy jug di uti bu ko solee day am nit ku nekk dafa am bés boo xamante ni moo gën ci moom ba bu jugee mbir mum ca sumb bu dee événement la day réussir bu fekkente ni kayit la day réussir bu fekkente ni lu mën di jongante day réussir bu fekkente ni seet mooy waral nit ki nga xam sa sarax ndax doomu aadama yi nit bu yàlla dogalee nga xam sa sarax xam yow yaay kan loolu jërutul sax ngay dem ci sëriñ naan ko ñaanal ma parce que yow xam nga liy jàppandal sa mbir ndax doomu aadama sarax rek sarax mën naa ubbi mbiram léeg-léeg nit laaj la saraxu ay nagak wala ay nangam ak nangam non ay 66 naat ak. lool non loolu loolu ay wax la. moo tax buur su ma su may def émission damay wax nii nanu waxtaan ak nit ñi ñu diglu bu baax. bala maa ñëw ci xam-xam damay ñëw ci xel ñu digloonte ci xel. ndax mën naa am ma wax ak yow ci xam-xam foo am nii sama xam-xam ak fi may waxee yow tolloogoo fa mais may bu may waxee yow ci xel di nga ko comprendre set am na ñaan yàlla am na ñun koo bëgg a defee moo nekkoonu ni comprendre nga il nu wax sénégalais dëgg. fi mu toll nii émission bi nii ma yoree micro bi ku toog lii may wax nii moom lay wax waaye mu jëfe lii muy wax mooy jafe. il faut waaw ñu bàyyi xel bu bu baax a baax ndax damay faral di wax ni damaa am njaboot yor kër yor ay soxna yor ay doom te ëllëg bugguma nit di gis sama image di ma xeeb. gis nga am na ñoom dañuy jékki-jékki toog ci ci émission ni diwa doonoon sama maam di ko puukaroo waaw lu maamam def ba mu sañoo di ko di ko bàkko est-ce que bàyyi xel yow mii seetaan nga diglu ma ci xel la waxuma nag ci xam-xam kooku lu maamam def ba toj ba jéem a def ci xam-xam loo xam nii waa nit dana waa nit dana mën a génn ni diw mooy sama maam dama bëgg nag maanaam bu ma bu ma bu ma ci yaatalee samay sët wala samay doom bu ñëwee ni diwee sama baay waa loolu lu ko dàq mais imagine toi nga jël xaalis nit ki la nga ko war a ñaanal defoo ko mu jox la ca nangam pourtant nangam jooju xeeb sa wërsëg la zappé man aw duma def ne pas euh, yàlla xam ne ne téléphone bii ma yor sax gis nga. Euh, simple la ah. boo may aw may may may uyu. 9h danaa fekk ak lu mu guddi guddi ma jug toog wuyi appel yi ñi nga xam ni ñoom laa war a ñaanal ma ñaanal leen ñi ma war a seetal ma seetal leen. billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa barke xasaayiti sëñ Tubaay damay fa yéene lépp lu may wax nit ci ñaan yàlla mu doon dëgg. lu ma mënul du ma ko engagé. yàlla xam na loolu waaye daal boo boo bëggee dégg dëgg buur seet man loon lu nekk li feek nag seet lu ma la ba wax la yow ba xam doo mën a gëm ni seet am na lu nekk te ki ma gën a yàkkamti buur ki ma gën a gën a yàkkamti mu woo mooy ki nga xam ne dem na ci fukki sëriñ ak juróom-ñett gisul résultat nga xam ne jaay na ay ay oram jaay lu nekk lu ne mu def ko bu dee góor lu ne mu jaay ko dimbali ma rek nga nga ñëw ñu jëflante nga xool nga xam ne sëriñ am na noob gaa ñu yombal lañ ko trop surtout ci TikTok bi mhm. noobu vingt quatre heures noobu quarante huit heures noob noonu la yombee déedéet déedéet noob ku la ko yombalal waxu dëgg sëñ bi lii ñuy def ni yombut du business mhm. ñu diglu ñu waaw du business du loo xam ni comme tey da ngay jekki-jekki rek maanaam loo xam ni marchandise la nit danaa la am nga ne ko am tegg mhm. demewut noonu nopp dafa bëri ay façon man bu dee xam-xam bu ñuul 24 heures lay diire nga gis résultat. waaw maa ngi koy liggéeyee ci mbott. Hmm. xam-xam bu dee euh, bu ñuul mbott la ñu jël balaa muy dee lañ ciy def liñ ciy def ba pare. mbott moom bu ñu defee ba pare balaa 24 heures yee mat barki Cheikh Ibrahima Fall bu dee daf laa jige dana ñëw ba gis la. jéggalu la wala mu sukk say tànk di jooy bu fekkente ni daf laa sori nu mu mën a def ba dégg la dina ko def. muy ak ku man di doon. muy tubaab ak koo mën a doon sapone koo mën a doon ci àddina laa wax su ma la defalee nopp gii nii gii ki ma ci gën a yàkkamte mooy ki ci am sikki sàkka wala mu dem ci fukki sëriñ wala mu jàpp ni ci cee gis résultat xam la laa bëgg nga dimbali ma rek ñu jëflante ci nopp 24 heures yooyu nga xool ndax mbir mi léegi foofu la toll aajootul maanaam li ma lay wax ni buur billaahi barki sëñ Tuubaa bu ma ko defee vingt vingt quatre heures nga gis résultat awma ci sekki sàkka même yow mii ñaan lu set du la ci neexal li ma la ciy wax ni bu ma la ko waxee xanaa nga ñàkk a gëm waaye bis bu yàlla dogalee nga gëm ban jëflante ba ma wax la jour tel nangam ak nangam loolu dee rek moo koy dindi kenn du ma du ma du ma dugal ci toog wala fenn waaw ñu na ñu naan ma ku mën a nangam la wala lekk na sama xaalis loolu maa ngi koy dagaan sëñ Tuubaa mu bañ a am. kon yow nopp am nga ci façon yu yu bari yu bari ki am xaalis noo ko neex la koy tibbee maye. waa ki ko man nag nu ko neex la koy la koy la koy defee. wallaay dëgg la. ku am hmm. xaalis nu ko neex lay tibbee may waaye ki am xam-xam it. nu ko neex lay jëfee. waaw Charles. Hmm. ñu ñëw ci pomade hmm. balaa ma ñëw ci këyit. ndax góor ñi gàtt la leen. ñenn ñi nooy la leen ñu baal ma ci wax. te solution amu ci. wala boobu ci amee bariwul. léegi. bala may joxe bay may wax ci pomade bi dama leen di jox secret boo xamante ni ci koo xamante ni sa awra dafa gàtt da nga wut ñaam bi waaw waaw nga xool comme ñaam bi nga xool ni nga bëgg sa awra tolloo ko ni nga bindulu walansri ba mu jeex nga nga xooj ndox mi jël ñaam bi ju toggee ko ko nga lekk ko xool maanaam sëñ buur maanaam bu may wax ci émission yi damay taye wax parce que damay xam ni ñi fi jaaroon ñëpp nii lañ wax te am na ci ñoo xam te lan waxoon jëfewuñ ko waaye barke xasaayiti sëñ Tuubaa ba mu jotee yow xam nga ma ñaata yoon nga nga nga ñaata yoon nga ne ma nan def émission man la damay topp ci ginnaaw ki ma topp rek ma ma ngoog ba mu jotee dama ko dama ko uti ji dama ba ba nga xam ni duma ci jëflanteeg nit di rus du ma ci puukarewu du ma forcer kenn ci sama bopp nag waaye li may wax dëgg rek la ñam nga jël lii ma la wax nga toggee ko ko nga lekk ko barki seexul xaddim ku ko def billaahi barki alxuraanu karim na nanga bëgg na ñaami ba toll noonu nga ko nga ko nga ko mesurer noonu lay toll. wala koy bind ci àll. boo ko bindee ci àll mu ëpp mook mook daa moo ëpp moo ëpp moo ëpp kii nga raxas ko ba mu doon am ndox ndox moom ngay teg ci gaz jël ñaam bi ju toggee ko ko. doo ci def dara nga lekk. loolu mën nga yónnee dama koy def yónnee ko ndox mi bindal ko ko yónnee ko ndox mi mu jël ñaam ji jam bëgg mu tolloo ko xam nga mooy xam nag jëmmam nam toll moo tax mu toggee ko ko. nam bëgg lay toll ba bu fekkente ni tamit wàllu pommade bi nag kim tax a jóg du pour yokk exactement waaye pour ki nga xam ne awraam dafa yàqu bu dee bu mu judduwaale nag mënuma koo faj waaye bu fekkente ni ki nga xam ne yow boo yéegee une seconde nga mel ni tax kooku moom bu ma la joxee pommade bi mën nga cee def deux heures de temps su fekkente ni gëmuma na ñëw sama kër ma comp may ko du ko jox pommade bi parce que mën naa koo bañ a gisaat ndax xam naa li dama yëkkati ni ko di sol baaraam nii nga dem nga diw ko ci sa bopp awro bi nga dem nga essayé su fekkente ni gisoo ci résultat jërul ngay ñëwaat bu fekkente ni gis nga ci résultat billaahi deux heures de temps man nga cee nekk deux heures de temps doo daanu barki sëñ Tuubaa bu dee yow mi nga xam ni da ngay gaaw a daanu awra bi bu fekkente ni nag day dellu day dellu da koy dindi bu fekkente ni boo daanoo boo yéegaatee pour nga jugaat day jafe loolu bu fekkente ni utiliser nga pommade bi da koy da koy faj calmé wu ko da koy faj ba mu set traitement bi une semaine la waaye premier jour bi nga koy jëlee rek ngay xam ne lii am na résultat. boo di nga xam ni barki Cheikh Ibrahima Fall du caaxaan billaahi mu ngi noonu billaay buur damay jàng xam-xam mhm. loolu nag nit ku fonk xam-xam mhm. ak ku nangoo sonn mhm. ngir jaami yàlla jariñu moo koy def change sama laaj yu mucc surtout sama mbokk gambien dañ ma koy jooytu mooy wàllu këyit surtout gambien yi laa wax man fu ne ma wooyee Canada Suisse ah Suède Germany buur suñu këyit yi waxtaan nañu ak sëñ ba yónnee ko furastan xëj te wax bu xam nga fi ne bu njëkkoon euh, ñëpp danoo am amour di ñaanlu mais pour nga gis tey nit ñëw di la ñaanloo pour nga gis ko tey mu doxe ca nam ci war a doxe dëgg dëgg day jafe na xam lu ko waral mooy euh, nit ki da ngay jëflanteek moom wax ko li nga xam ni munoo ko wala du am kooku day découragé ba dootul am confiance ci keneen. waaye nag da ngay gis waaja nga koy romb naan kii du waaja ba waaja dem ngay doog a toppaat ci ginnaaw waaja naan ana waaja boo boobaa waaja bu amee fula day xool ca ña ko waxoon yaay waaja mais dama bu fekkente ne wàllu kayit ki nga xam ni nag déposé gul moo ma dàqal ndax dama koy assuréel moom waaye ki nga xam ne déposé na lu yàgg mënul génn boo déposé am na numéro bu ñu lay jox numéro boobu nga may jox bu ma defee li may def un mois bu génnul bu génnul la nga ma joxoon ma dubleel la ko joxaat la ko. waaw comme ni ma ci amee fit nii maanaam te fu ma mën di demit nii laa ci amee fit muy dama ko mën buur nit bu dee wax lim mën bu ko xamee rek koo gis muy leem leemal naan nangam incha allah waaw dama naan la mënuma ko vraiment waaye lii ma la wax ci wàllu kayit ak nopp ak néew kàttan bii ak yeneen ak yeneen barke alxuraanu karim dama koo mën moo tax man la nan nan nan cité ci ñett yi euh, yow mi ci am euh, bi ci am waaw cat ko seet lu ko waral ndax seet bu la nit seetalee ci lay mën a xamee loo dal gis nga gis nga médecin munoo ñëw ci moom ni ko sama bopp day métti noonoo non munul nekk képp ko ko maanaam nit ñi nan yeewu nit mënut ta ñëw ne la eh, bopp bi métti laa am nga jékki-jékki rek yëkkati ab doom jox ko ñaan ko mënta ñëw ni la nangam mooy metti nga jekki jékki ni ko am nangam menn nopp laa dul seet te am na nu muy demee dama koy seet ba xam def def la ba xam dëddale la bu fekkente ni leneen lu la dal muy wàllu cat dañ koy dina cat day waral ngay tëdd sa yaram di diis cat day waral loo yor mu nit mu mu dem cat day war xanaa xamul cat day ñaawal nit waaw cat dalay topp bayo ba da ngay déformé wu da ngay ñaaw dalay topp ba da ngay xoy yi yi mooy ku la gis du dara loolu cat moo koy waral cat da lay topp ba say moroom dangay gis koo am ni maanaam moo lay gën a farmul bu ñu doon joxe dara moom lañ koy jox cat da koy waral cat day waral ak ñàkk cat day waral gaaw a dee moo tax li mat a ñaan mooy cat eh, semmal wala nga ci bàq kon nga xam ne kon <laughs> day day topp nit ba ci biir bàmmeel seen buur ñaan yàlla am na lu am la waaw ñii ñaanantu nag ñoo bari dëgg forcé wu ma kenn ci sama bopp waaye ku ma jëflanteel santante gërëmante rek moo ci am. Euh, semaine waaw man su fekkente ni maa ngi tuubaa samedi ak dimaas bu nekk maa ngi Dakar. bu fekkente ni maa ngi tuubaa képp ku ma jëflanteel ba ni la bés samedi ñëwal sama kër boo ñëwee fekk sa liggéey pare. bu la neexee ma joxal la ko oto wala yaay xool ku la doy ma joxal la ko waaye l'essentiel ko moom mooy li ma la wax nii mooy naa fexe ba nga jot ceeg nga ñàkk cee jot li ma la wax nga gis ko nga teg nga teg ci bët moo ma dàqal daal man damaa bëgg comme nit ki xanaa xamoon ni li gën a neex mooy nga seq ak nit ki mu di la jariñ nga di ko jariñ ba yàgg ngeen xamante am maanaam di tuddantey doom di dem demlante voilà loolu moo ma dàqal moo ma dàqal sëñ buur mais comme comme falaa falaa yi jékki jekki nit wala rek nga ah, ah, lekk ci moom benn sagaru xaalis après nga jekki jékki mu di la woowaat doo ko jël wala yeneen yooyu yooyu dafa dafa ruslu tam te te nit ku nekk da am njaboot yor ay doom ngir ngir yàlla war a suuli nanu bàyyi xel ni dañoo am ay njaboot te képp koo jël ci moom alalam dana feeñ ci sa njaboot te bala ngaa dee deewu ñaaw ngay ngay dee nag képp kuy def loolu xoolal ay sëriñ yu bari nag. yoo xamante ni waaw déegu ñaaw la ni dee wala dañuy jékki-jékki ba maanaam yàlla day rekki seeni garaat comme na na pël ba meloon rek pël ba ba daan kii sëñ tubaa sëñ tubaa daay rekki ay garaatam moom daa torox moom waaw mu dem muy kii waaye daal sa sama émission faaw day neex parce que ni may waxee mooy li may wax ci sama xol la ne waxewu ma ko ngir sama bànneexu bakkan ndax damaa am métier di ko liggéey du lii rek ci laa jariñ wala ci laa yaakaar tedd ngi kon nan bàyyi xel lool bu baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ci doole sëñ Tuubaa ñëpp am jàmm di ñaan Sénégal réew mi ñun ñëpp ñu nekk ci jàmm di ñaan képp koo xam ni am nga soxla bu na bu dee ñëw ci man yàlla na ko sëñ tubaa saafaral ba la may def mu jàppandi ci ci diir bu gàtt. waaw maa ngi ziar ñëpp di ñaanal ñëpp sëñ buur yow ak sama cameraman bi sama xol sedd na ñoo ngi ñaan sunu yaakaar nag ba ña tas ci kenn yaakaaru kenn ba ña tas ci ñun ci barke Borom Touba jërëjëf.